nag saa su nekk di waxtaanee li nga xamante ne nag moo di actualité euh, réew mi li nga xam ne moo xew euh, fii ci suñu biir réew di Sénégal laata loolu nag ma leen di bëggee euh, di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax ci topp gi nga xamante ne yéen ñu koy topp ci suñu chaîne bi di Télé Sénégal TV di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel un partout dans le monde fi nga xamante ne moo di si diaspora bi waaye itam ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal di bàyyi xel chaîne bi di. Euh, Télé Sénégal euh, TV euh, di fi taataane li nga xamante ne moo di information réew mi comme ni ñu koy defee nag dinañ leen ubbil li nga xamante ne moo di ligne bi su ko defee ngeen daal di rek mën a dugg ngir participer au 77 810 90 90 xam ngeen numéro bi bu baax su ko defee ngeen daal di mën a dugg rek daal di joxe seen xalaat ci li nga xamante ne nag moo di situation réew mi. Euh, comme ni ma ko waxee rek ci bi may door dinañu fas yéene rek waxtaanee li nga xam ne mooy actualité réew mi euh, dinañ ci euh, jiital li nga xam ne mooy visite bi nga xam ne kii di président de la république Macky Sall daal dina koy def foofu ca Touba Mbacké demoon rek jàkkaarloo ki nga xam ne. moo di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ngir am ak moom waxtaan waaye nag mën nañu wax ni waxtaan ba huis clos la kon nag xamuñu li nga xamante ne rek moom lañu fa daal di waxtaanee waaye nag après euh, gise le rek gis nañu ne ay polémique daal dinay euh, juddu ci réew mi ñenn ñi di wax ne nag euh, kii di président Macky Sall xalif général des Mourides recevoir ko ñi naan recevoir na ko lu mu ci mënti doon kii di xalif général de Mourides moom génnul ba tey def déclaration ci lu waaye tamit ki nga xam ne moo di chef de l'État euh, président Macky Sall moom tamit génnul daal di def nag li nga xamante ne euh, moo di déclaration ci lu ni mel kon nag nit ñi euh, ñooy wax ko ci nekk nag ak li ngay wax mi ngi noonu bokk na it ci li nga xamante ne. moo di arrestation yi nga xamante ne amoon na ci manifestation yi nga xam ne moom lañu génn ci semaine bi ñu weesu amoon ay mineurs yoo xamante ne nag tegoon nañ leen ci loxo daal di nañuy joxe nag daal nañuy wax ni ñëpp képp koo xamante ne parent nga ñu téye sa doom ci li nga xamante ne moo di manifestation yooyule euh, mu nekk mineur di na nga dem présenté wu ci poste de police yi ngir rek nga mën a récupérer sa doom ndax nag mënuñu leen bàyyi te seen i wayjur teewuñu waaye it am na ñoo xamante ne it jot nañ leen libéré ku ci mel ni euh, Seyni bi nga xamante ne nag moo moo nekkoon ci euh, maya Yacine ak jaal moom daal di nañu koy euh, ni niki ba bàyyi nañu ko mu daal di ñibbi këram euh, mu mel ni nag comme ni ñu ko waxee arrestation yi bëri na waaye noonu arrestation yi bëree waaye tamit noonu tamit la ñi nga xamante ni ñoo si ñàkk seeni bakkan Euh, takkoo ñuy euh, ñuy jaale ñi nga xamante ne euh, ñoo si ñàkk seeni doom ñu leen di jaale ñi nga xamante ne ñoom lañ si ñàkk bu baax di di ko jaale Sénégal yëpp ndax nag Sénégal lu laal kenn rek laal ko ca des ndax comme ni ñu koy waxee senegal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ba tax na nag lépp lu naqari kenn rek dina daal di naqari ki ci des ñu koy jaale yëpp ci loolu nag wax nañu ne rek dinañu daal di def deuil national ni ki euh, suba le 8 incha allah dinañu le 8 demain juin. deuil national dina daal di am ci réew mi <laughs> ngir rek euh, respecter li nga xamante ni mooy euh, moor yooyu nga xam ne am na ci manifestation yi nga xamante ne nag ci la ñu jóge ci manifestation yi ba tey rek ñu ngi dëgmal aussi manifestation yoo xam ne euh, war na amaat euh, ni ki semaine bi ci biir semaine bi euh, ñu daal di rek déglu ki nga xamante ne moo di sëriñ Khadim Mbacké moom nag mi ngi woote fi nga xamante ne moo di Touba Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu di la ziyaar. waaw ñu ngi leen di fay. allo. Sénégal yëpp. Mm-hmm. ñaan suñu borom def jàmm. Mm-hmm. ci réew mi yëpp mhm. waa di wax ne Sénégal moom wax dëgg yàlla li nga xamante ne gis nañ situation yi am mhm. ñu ngi koy ñaaw bu mhm. Sénégal sëñ bi est-ce doo déplacé wu tuuti fi nga nekk réseau bi xawul baax da ngay déplacé wu tuuti rek hmm? déplacé wul fi nga nekk réseau bi taxu koo jàppandi lool waaw yéen a may dégg. waaw ñu ngi lay dégg. waaw ki nga xamante ne mooy chef chef suprême muy mooy muy Macky Sall. Mm-hmm. lii nga xam ne tey moom lañ gis nii. Mm-hmm. deux mille onze mm-hmm. amoon na ci Sénégal. te bi muy campagne. yu mel nii la waxoon ne dina ko xeex ba du am ci Sénégal. te gis nañ ne am na Sénégal. te Sénégalais yi jiwuñ ko woon di. buñ sañoon. Euh, muy mu mu mu bàyyi xel ña doon xeexal ak ña nga xamante ni faatu woon nañ. Mm-hmm. ci jamono booba. Mm-hmm. ngir tey ji mu doon président de la république. te mm-hmm. yàlla dogal mu nekk ko. kon nag amaat nañ ay ay trentaine de personnes yoo xamante ni faatu nañ am ay blessures. kon nag nag xoolaat bu baax a baax a baax boppam. te yërëmaat askanu Sénégal. te xam ne bu sañoon yii am nii du am. ñi ngi mastaw nag famille yi ñi ngi mastaw aussi tamit euh, ñi nga xamante ne ga ñi ñi ngi jaale ñi nga xamante ne mm-hmm. ñooy famille ñi victime yi ñi ñi gaañoo yooyu di mm-hmm. ñaan suñu borom yërëm leen te jéggal leen mm-hmm. te ñi nga xamante ne ñooy waajur yi suñu borom na leen defal xolu xolu muñ waaye fii réew mi toll moom wuñ ko woon ci Macky Sall gis séntu woon nañ leneen lu bokkut ak lii nga xamante ne moom lañ gis moom lañ gis ci réew mi nii Mm-hmm. ndax uh, ndax président de la république mooy ki nga xam ne bu réew mi amee jàmm mm-hmm. moom la sant bu mm-hmm. réew mi amee amee leneen lu dul jàmm it moom la ñuy waxal waaw kon nag ñi ngi ñaan en tant que président de la république Sénégal yi jàmm am ndax Sénégal jàmm rek la la xam te jàmm rek moo xaj dëgg la sëñ bi euh, ñu bëggoon la interpeller tuuti rek ci euh, visitu euh, président de la république foofu ca Touba Mbacké mu doon dajeek ñëwoon ngir waxtaan ak ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides mu am nag ay wax yu ñu ci dégg que ni sëñ bi mujj ko recevoir est-ce que loolu lu wér la ndax danga koy dëggal. waaw man nag duma ko dëggal duma ko dàq. doo ko dëggal doo ko dàq. waaw ndax li tax duma ko duma ko dàq mooy. Hmm. bu fekkee dafa ñëw bett sëñ bi mën na koo bañ a gis bu fekkente ne yëglu woon na it mën naa mu gis ko ndax ku toll ni sëñ Muntaxa di xalif général des mourides mm-hmm. jàpp naa jàpp naa ni ku fi mën a ñëw mm-hmm. moom dina la recevoir ak koo mën doon mm-hmm. ndax loolu moo tax mu mu tooge siège bi nga xamante ne foofu la nekk te mu ngi ko baax nitu jàmm waaye bu fekkente ne yëglu ko mu fekk woon mu tëju jàpp naa ne du ko gis ndax moom ak jaamu yàllam da ko da ko da ko da ko da ko doy sëkk mm-hmm. waaw tey ah, yëg naa ni daana wax ak mm, ki nga xamante ni moo jiite réew mi mm. lu jëm ci wàllu jàmm ci biir réew mi waaye dégg naa ah, ñu ne daf ko daf ko daf koy tànqam lu daal dafay mbir mi ne daf koy tànqam lu koy bàyyi ci biir daal di wax naa mbir mi nañ ko bàyyi yoon mm. def liggéeyam mm-hmm. waaw tey ñaan na ko ci njëkk dégg naa bu tàyyi waaye mu may ko Hmm. kan moo ko ñaan jekk xalif général. xalif général des mourides kon nag hmm. loolu mën naa nekk. Hmm. waaw loolu mën naa nekk. ah kon da nga jàpp ni eh, njekk gi mu ko ñaan mën na tax ba mu ñëw fa mu bañ ko recevoir. mu bañ ko recevoir waaye tamit mën na ko recevoir tamit. waaw mun daal du ko dëggal te du ko weddi. waaw du ma du ma ko weddi waaye ndax nax dama fa fekkut te aw ma ci ay argument yu leer. waaw waaye xam naa ne sëñ moom lii xew ci réew mi moom neexu. waa te it xam naa ne la la xewoon bu njëkkoon rek ba am ñu faatu woon mm-hmm. ba mu ay taalibeem ak ay rakkam ki mbokkam mm-hmm. ñu jug dem masawu ji ñooñu jaale ji leen mm-hmm. nam ko mette woon nu ko raw la ko mettewaat dëgg la waaw ndax moom mooy Sëñ Tuubaa ci kaw suuf waaw waaye waaye moom mi nga xamante moo jiite réew mi moom na bàyyi xel bu baax a baax a baax fam nekkoon man bokkoon naa si ñu ko daan xeexal depuis deux mille neuf dekkal ngoon yéen taxawale parti boobu Ablaye Wade. dëgg la ne parti boobu du dem. Mm-hmm. waaw ne parti boobu du dem. Mm-hmm. waaw léegi nag euh, mu taxawalaat beneen mu taxawalaat mu taxawalaat beneen beneen beneen ah, ah, ah, beneen parti bu tudd kii mu taxawalaat beneen parti bu tudd APR. Mm-hmm. ñu àndaat ci ak moom. dëgg dem naa partout en Europe nag doon ko fa taxaw di ko fa jàppale. ngir yaakaaroon ne bu fal fa. suñu mi jàmm dana fi am. Mm-hmm. waaye nag gis nañ ne depuis bi mu faloo ba tey mm. jàmm ji yaatuwut te jàmm ji bëriwut mm. waaye eh, est-ce que tey eh, jàmm jooju danga koy jël rek weer ko weer ci ndodd président de la république ndax nag eh, gis nañu réew mi nu mu demee tey bu fekkee ni mbirum jàmm rek la wax mën nañu duut baaraam tamit ñu féetee ci côté opposition bi waaw opposition bi xam nga dañu am droit de marche mm. droit de marche xañ mu fépp Mhm. waaw nit boo xañee àq ak yelleefam mhm. mu gis boppam gis nga euh, bàyyi ma yi nga xamante ne da nga ko yar sa biir kër mhm. sax boo boo leen xañee seen liberté buñ la buñ la jekkoo mën nañ la mbëkk bu dee muus mën na laa song rawat naa nag doomu aadama kon nag lii opposition bi def nii dañoo jàppoon ne buñ jugee buñ jugee danañ am leen neex waaw waaye waaye waaye amuñ lu leen amuñ lu leen amuñ lu leen neex. Mm-hmm. biñ jógee taxul ki nga xamante ne moo jiite réew mi. Mm-hmm. mu mu mm-hmm. wane mu wane mu wane mu wane. telam mu wane mu jógaat ca lam nekkoon. mu jógaat ca lam nekkoon. waaw waaye daal ñu ngi ñaawlu daal moom wax dëgg yàlla. Macky Sall seetaan gi nga xamante ni seetaan na ko. ba nanguwul dellu ginnaaw ci yu baree baree baree bëri mhm. ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax mhm. waaye ñi féete ci opposition bi tamit est-ce que ñoom tam war ñu teggi tànk tamit dellu ginnaaw parce que ñu ngi wax ni gis nga ni réew mi jaxasoo fi mu toll nii euh, ginnaaw manifestation yi ñu weesu waaye ba tey ñi ngi wax ni tamit dañuy waajal rassemblement vendredi ak samedi bi nga xamante ne euh, ci la ñu jëm est loolu tamit du yëngalaat réew mi te gis nañu ne fan yi ñi xaw a récupérer waat li nga xamante ne mooy tranquillité réew mi ndànk-ndànk waaw waaw waaw moom de xam nga ni loolu buñ buñ buñ buñ toogee waxtaan. Mm-hmm. loolu lépp ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk a waxtaan. Mm. moo ko waral. Mm. waaye buñ toogee waxtaan. Mm-hmm. bu boobaa ah, buñ toogee waxtaan loolu yëpp dana saafaraw. waaye est-ce que waxtaan boobu ñu fere ñu faree ci opposition bi danañ ko nangu tamit. ndax gis nañ ne gis nañ ne dialogue bi majeure partie yi ñu nekk ci opposition bi demuñu. mais xam nga dialogue bi fi fi ñu ko defee moo baaxul période bi ñu ko def nii. Mm. moo baaxul. Mm-hmm. parce que koo xam ne huit mois moo la mm-hmm. defee ci ci ci nguur gi nga jeexal. Mm-hmm. nga bëgg a taxaw ne da ngay def dialogue. da nga gis ne dañ ko waroon gën a teel a def daal. waaw dañ ko war bi bi moom dafa waroon a teel a wax ni. du bokk ci élection yi parce que moom amul droit bokk ci. bu paree aussi tamit. dafa war wax ni dafa war a dafa wax ba pare mu waxee loolu ba pare mu def mu def décla mu defaat dialogue boo xamante ne pour ñan ñoo war a organiser élection yi. Mm-hmm. yu libre ak et transparente mm-hmm. waaye waaye ñu ngi ñu sëñ bi ñu ngi wax ni euh, tamit ñu leen di fàttali ne sëñ xaadi Mbàkke la moom euh, mi ngi faree euh, foofu ca Touba di jàppale ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko alors président Pastef Ousmane Sonko alors tey ñu ngi wax aussi li nga xamante ni mooy possible report li nga xamante ni mooy élection élection présidentielle yi maanaam mun nañ koo dàq tey naka nga gisee loolu tamit. loolu loolu moom du ma ko rafetlu. Hmm. man ñu reporté élection yi moom dama ko rafetlu ma ko mhm. su ma sañoon élection yi moom période bi mu a a am rek ñu def ko mhm. muy deux mille vingt quatre mhm. te Macky Sall warul bokk te aussi tamit ñi nga xam ne dañoo war a bokk